rapport tudd na leen du ma wax rapport da leen épinglé da leen kii mais rapport tudd na leen donc ñooñu tamit je pense pas que euh, loi bi couvrir na loolu donc est-ce que tamit du ñu commencer par yooyu parce que y a des qui <laughs> qui sur la place publique aujourd'hui accessibles donc pourquoi mënuñu xuus même su dee sax cela pourrait déjà rassurer les Sénégalais maintenant les crimes de sang et autres mm. yi nga xamante ni dafa laaj dafa laal li nga xamante ni mooy xew diggante voilà loi d'amnistie bi loolu peut-être que naturellement on peut comprendre ko munuñu xuus euh, à cent pour cent yooyu mais yeneen yi fi nekk est-ce que c'est pas le moment de voilà quoi. waaw donc euh, loolu cela dire que dinaa ci apporter. aussi mm. ay éléments de réponse par mm. rapport ak euh, l'ancien ministre de la justice. li mu mm. wax man wax na. ba xam ni peut-être li mu wax ëpp na mu mu tourné donc kooku amul benn commentaire moo wax ba dugal boppam. génne waat ne dafa juum. donc kooku moom la engage donc kooku amul lu ñu koy tontu. voilà beneen bi mooy tey François Mancabou bi ngay wax. man je pense que bi nga xam ne ni tey jii ci prison peut-être euh, la la la amee tey jii ñu ne dafa mbëkk commissariat commissariat ba nga xam ne li ko ci fekk fekk na ko ci mu décédé je pense que dafa méngoog aussi jamono jooju entre deux vingt et ba deux mille vingt quatre fee yi donc je pense que fee yooyu da koy jël en compte donc loolu duñ ci mën a def lenn actuellement maintenant par rapport ak euh, tey jii mooy les forces de l'ordre yooyu nga xam ne nii dañoo disparaître hmm. nee nañ man je pense que tey boo nekkee ci benn dëkk lu toll ni ay force de l'ordre disparaître kenn xamul ci yan situation lañ disparaître li gënoon euh, rafet mooy ñu ñu ñu def ay enquêtes jéem a élucider loolu noonu et je pense que gars yi ñu ngi ci jarul jarul jarul yàkkamti je pense que gars yi ñu ngi ci surtout avec les fautes de gestion aussi yi ngay wax ni peut-être rapport yi publier nañ ko gis nañ ci gars yi nguute yi ñu def mais gis nga damay wax lenn xam nga tey moo tax ñu def assise de la justice man dama gëm ni euh, ñi fi toog actuellement ñu ngi liggéey tey ji ci ay base yu leer yi nga xam ne nii tey ji ñu ngi dajale les éléments qu'il faut nga xam ni bés buñ ci poursuivre kenn mm. doo am foo mën a jaar pour pour rëcc aussi bëgguñu aussi mu nekk nga xam ne justice bi fi nekkoon la cest à dama lay bëgg a galgal par force dinaa la dugal mm. alors que doo respecter sax tey ji ak ak yelleefu maanaam tey ji prévenu boobu noonu nga xam ne dafa am ay euh, droit comme droit de la défense yoo xam ne nii yooyu ay droit fondamental la yi nga xam ne nii maanaam euh, dañ ko war a respecter mm. donc ñun erreur yu mel noonu la ñuy la ñuy bañ a def mm. donc pour bañ a dugg ci erreur yu mel noonu gis nga c'est lent je le comprends ni nga ko yàkkamtee man noonu laa ko yàkkamtee mm. parce que quoi qu'on puisse dire en 2012 Macky Sall daa ñëw rek tàmbale singili gars yi man nag duma ko ci blâmer c'est très bien man ko côté boobu moom dama ko ci nawoon parce que mm. l'argent du contribuable ku ko détourné wala nga def def ci ay faute de gestion nga def ko noo ko warul a defee man je me dis dañ laa war a topp teg la ci yoon mm. loolu moo tax opposition ba jamono jooju noonu amul woon temps wu nekk di répliquer mm. mais li ñu constaté que tey ak régime bu bees bi mooy opposition bi au moins ñun sax dañ leen mayoon temps. parce que bu leen ci média yi ñuy wax lu leen neex. donc ci 100 jours yi ñun déggoo leen ñu la majeure partie génn wax wala génn def dara dañ ne nañ may la gouvernement bii door a toog ñu xool étudier tey def seen i planification. maanaam bu buñ ci paree def nañ ay assises dinañ jël recommandation yooyu yëpp suñ ci paree man je pense que avec déclaration yu président peut-être euh, di ñëw di def yooyu yëpp dina ci gën a apporter ay ay leeral donc ñun ñëpp justice lañ bëgg te loolu dina leer hmm, parce que un référendum est annoncé Adama ñu ngi en ñu ngi koy njort ne référendum la ñu jëm parce que il faut ñu laal constitution bi pour mettre en œuvre les conclusions des assises euh, ci wàllu track bi itam euh, certainement ñu ngi xaar bu ñu weesoo lii ñu ñu Euh, Quel est ton point de vue sur J'ai euh, les principes. pas sur les principes. Moi, j'ai demandé, j'ai posé Ban entreprise moo gagné marché 65 milliards yi. engrais bi engrais bi. j'ai posé une question très claire. Je ne suis et je n'ai pas donné de données de pourcentage et je ne suis pas dans ça que je ne suis pas spécialiste en. en waaw mais moo tax ñu wax la ko waaw déet ñun cest à ko jox la chiffre exact yi. donc mu leer ma laaj dafa leer li ma laaj dafa bokk ci transparence maintenant puisque mënoo ma jox turu entreprise bi donc ça veut dire que xamuloo. non du la ko jox waaw d'accord xaw ma ko peut-être. non j'ai dit waaw soo ma ko joxul donc ça veut dire que man damay jàpp ni amul. mais Adama loo def pour xam. d'accord est-ce que tamit yow tamit jéem nga. dafay tu t'es adressé euh, voilà. voilà je ne sais pas. Euh, pour xam non non je pas je ne vais pas répondre à cette question. Hmm. c'est trop facile à dire. la la la position la position quand on demande. Mhm. que mbirum Fulbert Sambou na leer. Mhm. wala mbirum keneen na leer. Mhm. wala mbirum ñi ñàkk seen bakkan na leer les filles de la Médina là dafa war a leer. mais loolu yëpp may ma tuuti. non may ma tuuti ñi des woon ci bus bi. mais loolu lu ñu war a leeral ba situer les responsabilités xool ndax yi ñu takkal en réalité ñoo ko def waaw wala déet. très bien voilà donc loolu mooy wax ji parce que c'est gis nga luñ ci mën a constater mooy jour boobu noonu dafa am ay événements yoo xam ne nii dañu déroulé wu yu bizarre donc mu ngi suscité ay questions ci bopp Sénégal yëpp ni ngeen bëggee mu leer ñun noonu lañ bëggee mu leer c'est des c'est des choses qui sont importantes man bëgguma nekk su ma nee Didier Badji na leer je di c'est fii de la Médina leer su ma nee leneen ak leneen na leer j'ai dama naan ñi ñi ñi kase ñu ñu saccagé BRT bi na leer su ma nee ñii ñàkk seen bakkan na leer ñii saccagé magasin jàmbur yi na leer. na lépp leer c'est-à-dire na lépp leer. parce que leer pour leer amul sélection. loolu la sénégalais di xaar d'ailleurs. j'ai dit non déedéet fii dañoo leeral rek ci crime de sang. parce que moo gën a garaaw. non non non dama ne. ki ñàkk ay millions. non dama ne moo gën a garaaw. Adama tu à côté de la vie. maintenant moo gën a à la des gens. quand on de sang quand on cite les crimes de sang on cite des personnes. et on oublie deux filles de la Médina c'est de la sélection. c'est de la sélection. ces filles ont été tuées. calciné ba léegi ñu leen ay seen i mbokk gisuñu leen li dal Fulbert Sambou ak su Didier Badji moo dal famille boobu. c'est Didier Badji parce que le corps de Fulbert. n'est-ce pas donc ces deux fii la ba nii seen i mbokk suñu leen na leer. moi, moi je veux disparaître wala man ah, parce que est-ce que am leen calciner wala parce que soo ne wala dañoo disparaître c'est-à-dire grand man man li ma bëgg <laughs> mooy man su ma àndee ci nit li muy wax mhm. dama ciy ànd gis nga la reddition des comptes mhm. man duma ko bañ sur les positions de principe yi ngay taxawee mhm. que man suñ ko deful lii man duma bañ loolu man dama jàpp ni 1000 francs bu Sénégal su ko nit lekkee daf ko war a teg ci taabal ji yaa ngi baax li ma la c'est des positions de principe maintenant nag y a l'accusation et la réalité y détournement des deniers publics y la l'enrichissement illicite voilà et bu ci nekk rek bee renversement de la preuve la bii détournement des deniers publics dañ ko war a prouver et je dis allons-y dans ça allons-y dans la reddition des comptes. bu ñu ko yëkkatee dina métti de. j'ai dit allons-y bu jógee. non xam nga xalil gaa yi wër di dem ci télé bi dinañ am lu ñu lu ñu lijjanti. xalil ba naan ñu ngi dem ci débat yi. wala ñenn ñi sax. xalil naan dañuy porté waate plainte wala demee noonu. bis bu jógee. xalil xalil dinañ bëgg mu demaat ci suuf. te te te dina métti ñun ñun ñun déggoo li mu la <laughs> ñun man bokk. awma dara. <laughs> j'ai dit voilà j'ai dit non déglul non j'ai dit ñun. yéen yéen de dama ne. yéen ñan yow yaay dama ne. <laughs> j'ai dit ñun yéen ak xam nga nag xam nga li ma wax dama ne. déet yéen ñan y a le détournement des deniers publics. et l'enrichissement illicite et mhm. attention. Mhm. wax ji dafa bari de. Mhm. su nekkee délit d'enrichissement illicite. man mën naa ko def parce que mën naa am sama salaire am yeneen revenu yu ëpp yoo xamante ne ëpp na sama salaire. c' est de l' enrichissement illicite voilà. non bu dee mënoo ko prouver non dama ne j'ai dit déedéet. en tant que agent de. en tant agent de l' aw ma droit bi. c' est de l' enrichissement illicite su nekkee enrichissement illicite dinañ topp agent de l' état yu bari dans ce pays voilà parce que li ñu am seen revenu weesu na ko tolluwul seen revenu su nekkee détournement de deniers publics il faut apporter les preuves. de ces détournements des deniers publics moo tax ma ne la nañu def ndànk ci lu bari moi je suis oui pour la reddition des comptes oui que situer les responsabilités ku def ñu xam ni yaa def ku def laa wax ñu xam ni yaa def ku deful nit ñi xam ni defoo ko tranquille mais évitons de faire dans la menace suñ jógee su jógee nit ñi di xum bu bëri dina bëri biru dina bëri biru dina bëri wax ji moo fi ne un état bu toog day def ce qu'on appelle l'audit pour xool fan lay commencer ak fan lay jëm les fameux rapports liiroo ci benn rapport ñu ne ministre diw détourné na alal la rapport les rapport des cours des comptes liiroo ko ci benn rapport su nekkee liir nga rapport. rapport yi bëri na j'ai dit rapport cours des comptes. xam nga rapport